Euh, ceeb bi nag moom El euh, Hadj Malick moom nee na dafa yokk. ah ceeb bi moom xam nga bi reportage bi jàllee. <laughs> vraiment dama ci bëggoon rebondir mais bëgguma woon dagg sa journal. Mm-hmm. xam nga toog sa bureau di wax ni ceeb bi wàññi nañ ko dafa yomb. Mm-hmm. mais bu ñu demee ci réalité terrain bi. Mm-hmm. man li may dund nga koy dund sénégalais bi di ma seetaan di ko dund leneen la. ceeb bi dafa yokk c'est ça la vérité lan moo tax mu yokk soxna Faati. Inde dañu accordé woon euh, cinq cent mille tonnes. de riz non parfumé brisé pour mu dugg ci réew mi loolu accord la bu ñu amoon ak Sénégal mais lan moo ko bloqué ba bëri bëri boobu euh, muy ceeb non parfumé bi euh, bariwul ci marché bi ba commencé muy am yokkute moo di ni que fret bi moom moo yokk ñoom importateurs yi ñi ngi may dégg xam nañu bu baax lu may wax. Mhm. un million la woon léegi egg na trois millions. fret dañ ko multiplier par trois. dañ ko multiplier par trois. Mhm. loolu moo waral ñoom pour ñu jëlee ceeb bi bitim réew. Indicofi, ça pose problème parce que Fred bi dafa yok ba djégué dayo benen bi la réalité du marché man dem na jënd saaku ci rue parfumée 24000 lay jar ci grossissime di jar 25000 euh, ci ci ci yenen boutique yi da loko 22 jëndé 22000 le 22500 500. doon jar légui Les 24000 ba mhm. euh, kilo tiep bi 450 ba 500 c'est selon donc ñi nga xam ne ñoom ñoo toog seen bureau muy waa commerce intérieur nañu descendre ci terrain bi. dem dem xool contrôler lan moo xew. ceeb bi yokk na ba jéggi dayo soble yokk na pombiteer yokk na dund gi yokk na. les sénégalais souffrent wàññi bi nga xam ne moom la ñu diggee woon. nañ ci gaaw te baral ko. Mm. parce que non seulement mbir yi yokk na mais xaalis sax moom moo amatul pratiquement ci réew mm. Mm. il faut dire la réalité telle quelle. wax ni aussi euh, euh, soo bëggee wàññi aussi dina métti hein, parce que benn njëgu fret bi suñ ko multiplier par trois. da ngay lekk yow nga koy jëli bitim réew ah pour nga wàññi ko dina jafe de. waaw non dina jafe guñu ci. wàññi parce que waxoon naa ko fi jamono yële. Mm-hmm. ni leen bu ñu buggee wàññi aussi marge yi dafay gàtt. Mm-hmm. ñiy jaay ceeb. wax nañ ko nee nañu mënuñu di importer ceeb bi di fay yenn fret yi ak yenn kii yi ba pare di ko wàññi euh, à souhait mënoo ko. il y a des choses yu nga xam ne boo produire bayul euh, pour nga wàññi ko euh, de parce que la réalité du marché international est tout autre La femme a une réalité yu nga xam ne ñun maîtriser donc nous li ñuy bay dunde boobu nga xam ne la premier ministre Ousmane Sonko wax ni loolu la ñuy euh, pour atteindre ko mmh. tant que atteindre uñ ko prix nous mënuñu ko wàcce comme nu leen mmh. mais la réalité du marché est tout autre les Sénégalais souffrent mmh. njëg yaa ngi ñom ñi tok ci bureau yi nañu génn bureau yi dem ci terrain bi contrôler parce que les sénégalais actuellement ñun ñi dem di jëndi xam nañ ni affaire yi yokk mhm. deug nak bu joté dang koy wax te yalla tax jërëjëf jërëjëf Alaaji Malick euh, moy doon indi ay leeral ci ceeb bi euh, ñu dem ci fekk